nekk à droite. waaw ñu ngi gauche gauche ak tey dañ nekkee. léegi léegi sëñ bi ñi ñi nga xam ne ànduñu ak oto Lo yëpp nañu eh, prince. kii eh le roi des arènes génn na. le roi des arènes génn na. le roi des na même le roi des arènes génn na le roi des arènes génn na le roi des arènes génn na Yékini Junior le roi des arènes génn na. Yékini Junior nuyu naa la. Yékini Junior mu ngi dugg. le roi des mu ngi dugg. le roi des mu ngi dugg Allahu akbar. le roi des arènes mu ngi dugg. le roi mu ngi dugg. le roi mu ngi dugg. kii journaliste la. stade baa ngi toj. bon loo mooy dugg si. combat Modou Lo Ama Baldé du yomb xajul la xajul arène nationale loolu man Iba Kane maa leen ko wax Ama Baldé Modou Lo xajul arène nationale ah le roi des arènes mënul sax génn bàyyi Modou Lo ngoog le roc des parcelles le tombeur de Eumeu Sène oh Modou Lo ngoog c'est la première fois mu ñëw arène Papa Sow ñëw na Yékini Junior ñëw na Yékini Junior nuyu naa la waaye grand ndànk grand dajale fi Modou Lo dajale fi Papa Sow dajale fi Yékini musul am journée bi musul am c'est la première fois dans l'histoire ñaari roi des arènes daje fi takkusaan Eumeu Sène ak Modou Lo Ama Baldé son adversaire yi fi Boy Niang 2 yi